dali jàmm ñoo àndi xëyër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di l'info las la tribune sud quotidien l'observateur enquête le quotidien ñu xëy duñu xibaar naan ñu élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Ousmane Sonko du ci mën bokk la ko waral bokk na ci coow li doxoon digganteem ak Mame ci lu jëm ci wàllum 29 milliards yu Prodac yi ba ko Mame yóbboo fa mbaxana doonee benn cour d'appel bu Ndakaaru dafa waxoon ne nañu ko tëdd waaye appel bu ndakaaru jëloon na ko ci ay jamono Ousmane Sonko jël kalaame ji ko ca kanamu cour suprême cour suprême ni ki démb daan na koy àttee cour suprême ba mu ko àttee ba pare dafa daal dëggal li nga xam ne moom la cour d'appel waxoon na juróom benn weer dëggal na 200 yi cour d'appel waxoon ne Ousmane Sonko na ko jox Mame Mbaye Niang démb la yéen kay gii si ko xëy duñu xibaar naa ñu ni démb ca cour suprême ba ñuy àtte mbiri Ousmane xam ne cour d'appel jëloon na ko ci mbiri Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñu daal di koy gàntal maanaam ñu daal di koy kase loole la avocat général bi sàkkoo niki démb yéene kay gi di Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko Mame Mbaye génn na ko ci élection présidentielle 2024 te Ousmane Sonko dina toog lu toll ci juróomi at yoo xam ne du mën a fal kenn kenn du ko mën a fal yéene kay gi di ñu xëy fekk fa kenn ci avocat yi Ousmane Sonko yi di maître Khoureyssi Ba moom nag wax ne adversaire yi Ousmane yi ñoo am ndam ñoom ñoo gagné ndax li ñu bëggoon am nañu ko ñu bëggoon mooy éliminer Ousmane Sonko ci te loolee am nañu ko kaddu yi maître Khoureyssi Bala démb la ko wax bi mu génne ci tribunal bi yéenekaay gi de l'Observateur ak enquête ak la tribune xëy di ñu ko yeggee yéenekaay gi de l'info xëy duñu xibaar naan ñu cour suprême daan nay dogal bi cour d'appel bu Ndakaaru jëloon ne Ousmane Sonko nañu ko tëj juróom benn weeri kaso yum du tëdd ba pare mu daal di jox Mame Mbaye lu toll ci 200 millions cour suprême ni ki démb daan nay lu jëm ci wàllum contrainte kaay nag nee dogal boobee ñi nga xam ne ñuy waa Cour dañu ko mujjee gàntal journal bii de l'info nee lii lépp nag li jur mooy Ousmane Sonko moo xam ne maanaam dafay inéligible maanaam du mën a bokk ci élection yéen kaay gi di évidence xëy duñu xibaar nañu avocat Ousmane Sonko yi tey ji la gën a taxaw maanaam bàyyi mbir mi deltu ginnaaw ci mbir mi yéen kaay gi de la xëy mel ne lu jaaxle ci mbiru Ousmane Sonko ak Mame Mbaye ni ñu mësuta am ci histoire bu Sénégal maanaam mbirum diffamation mi dox diggante Ousmane Sonko ak Mame ni ñu baralee jéego yi ni ñu ko fast tracké ni ñu ko gaawale loolee ñoo ngi koy doog di gis ci Sénégal ba Sénégal di Sénégal ba sunu yàlla jonni tey yéene kaay gi de Le Quotidien yor yor bi ca xët mu njëkk mu ñu fekk fa kenn ci avocat yi Ousmane yi di maître Bamba Cissé daan wax ne Ousmane Sonko ba léegi ma ngi ci course bi dogal bii nga xam ne Cour suprême loolee mënul ta tere Ousmane Sonko bokk ci élection yi ndax nee na Ousmane Sonko ma ngi ay droit civique am ba tey kay gi da la témoin ñu xëy fekk fa maître Khoureychi Ba muy indi ay leeral daan wax ne Ousmane Sonko ba léegi dafa éligible ndax tribunal d'instance hors classe de Dakar dafa waxoon ne Ousmane Sonko nañu ko dugalaat ci liste électorale yi moom maître la mu jàpp kon Ousmane Sonko am na dëgg nekkaat ci biir liste électorale yi daan bii nga xam a bokk ci ak Mame Mbaye Ba li mu bëgg a wax bu ñu bëggee Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection dañu koy rajewaate ci liste électorale yi ndax tribunal d'instance hors classe de Dakar dugal na ko ci liste électorale yi yéen i kaay gi bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum conseil constitutionnel ak gira waleeg njombe gi nga xam ne ni ki démb daan nañu ko fay nemmeeko ndax dafa am candidat bu dëgër fi ta bu tudd Thierno Cissé boo xam ne nekkoon 76e position yéen i kaay gi délibération nee na Thierno Cissé bi ñu ko tegee loxo yóbbu ko dig bi ñu ko laajee la mu wax nee li ñu koy toppee lépp moo ko def maanaam te assumé na ko te nag lu ko ci man di fekk mu jël lu mu ci góobe gar ko lu mu ci boxum yee ndax nag nekk candidat jaraloon na ko lu nekk moom Thierno ay atam toll si juróom fukki at ak ñett maanaam ab informaticien la yéen i kaay gi nee na ci kanamu enquêteurs yi na leen di wax na leen mbooleem daan

constitutionnel nee na tamit dina porte plainte de contre x ndax li mu bëgg mooy Saint-Louis googi lan moo ko génne ci document yi nga xam ne joxoon na leen kooy moom Aminata Touré daan na ca yokku yi nga xam ne jox na ko waa conseil constitutionnel conseil constitutionnel am na lu toll ci 10 451 yoo xam ne dañ koo wax na ko parrainage yooyu maanaam nikkul ci fichier électoral bi loolee Aminata Touré weddi na ko ba si naaj we ndax nee na mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko parrainé ñoom ñëpp ñoo ngi ci liste électorale yi loolee tamit bëgg na waa conseil constitutionnel andil ko ci ay leeral daan nay wax ne du Macky Sall moo koy tere bokk ci élection yi candidat moom Aminata Touré li ñu koy laaj lu toll ci dix huit mille neuf cent quatre vingt daan nay wax ne la mu réservé la mu denc ci parrain bu ñu ko laajoon cent mille parrain sax mën na ko génnee daan nay joxar bi baraamu tuuma ñi nga xam ne ñuy waa benn bokk yaakaar ndax Mimi Touré nee na cinquante huit cent soixante ci parrain la déposé moo tane benn bokk yaakaar gi nga xam ne ñoom ñoo fi taxawoon di fëgg dënn ne am nañu ay parrainage am bi recruté lu toll ci ci ay parrain Moustapha Sarré mi nekk directeur de l'école du parti bu Pastef moom nag daan wax ne Habib Sy mi nga xam ne waa Pastef ñoo ko parrainé ci ay député loolee amul kenn koo xam ne kooko contesté la ci farandoy Ousmane Sonko yi maanaam ñëpp ñoo ci ànd capitaine Omar Touré daan wax ne lu jëm ci wàllum fichier électoral bi opposition bi ñoo waroon a joxante loxo daal koy ñaxtu xeex ko taxaw ba ñu jox leen fichier électoral bi yéene kaay gi ñu jàll ci lu jëm ci wàllum parrainage bi doyen yi nga xam ne ñoo fi nekk ku ci mel ni Idrissa Seck ñoom am ay benk-ñenke am ay jafe-jafe ngir jàll ci parrainage bi journal bi ne nag kan moo xalaatoon mu jàll ci parrainage bi ak Boubacar Camara journal bi sax dem na bay laaj ne Boubacar Camara mii kan moo nekk ci ginnaawam yéene kaay gi nag nee na jamono ji nga xam ne ñi fasul ci wàllum politique ñoo jàll jamono jooji ku ci mel ni Idrissa Seck ak ak Mimi professeur Daouda moo gën foor ñii yéene kaay gi di en point ci xën mu njëkk ma Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ci nekk Dionne ñoom jamono ji ñoo ngi woo seeni ñooñ maanaam seeni partisan ci vigilance ak mobilisation générale banaaga ñuy valider candidature bu Mohamed Boun Abdallah Dionne ak timit muy falu ci élection présidentielle nee nañu bu ñu tàyyi bu ñu bàyyi yéene kaay gi bi nag terrain ñu miine la maanaam terrain opposition bi ñoo ngi wax moo ci nekk te opposition bi amul kenn koo xam ne maanaam xam nga lan moo ci am yéenekaay gi de la témoin xëy duñuy xibaar naan ñu Khalifa Ababacar Sall daan nay jàll ni démb ay député ñoo ko jàllale Amadou Ba démb jàll na moom tamit président conseil départemental yi ak maire yi ñoo ko jàllale yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy duñuy xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum parrainage bi ancien premier ministre yi jamono ji am nañuy jafe-jafe ngir jàll Mbaye ku ci mel ne Abdoul Mbaye ku ci mel ne Aminata Touré yéenekaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu ji nga xam ne juróom benn ancien premier ministre yu Sénégal mënuñoo jàll ci parrainage bi jamono joojee la Anta Babacar Ngom jàll ci parrainage bi yéenekaay gi de Enquête ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo daan nay wax ne jamono ji crise moo am diggante Sénégal yi ak seeni institution yéenekaay gi de La Soleil xëy duñu xibaar naan Coupe d'Afrique koy waajal ñoo ngi ci entraînement yi ndax lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn yoo xam ne ñoom la ñuy xaar ci réew